Ah oui, Le procureur, les juges d'instruction, Aïe Mamoudou Sek, Aïe Maham Diallo, Aïe Seydou Bokar Yag, directeur général de la police nationale, le directeur général des impôts, hein? Moussa, Moussa Fal Tebna, c'est bien. Voilà, Teb. Aïe Seydou. ay ay ay ay ay Bara Sangare, ay commissaire Faye commissariat central comme Diallo ils ont tellement torturé les gens ñu bayil len fa une seconde bu fa nek bu ne suñu xol yi chaque jour qui passe ñuy xey tok seen bureau yi di signer à notre nom c'est une insulte qu'ils nous font nous ils nous dañuy saga comment ils nous ont martyrisé. ils nous ont maltraité. Afficher nos noms sur les listes d'aéroports nous empêcher de rentrer chez nous nous couper avec ce lien euh, patriotique qui nous lie à cette nation qui nous tient à cœur. Nous souffrir, nous sommes Sénégal. Vous vous rendez compte Il y a des gens qui sont insensibles à ça. Nous créés, nous sommes auto, nous escortons, nous sommes des bureaux, nous sommes amuñu benn empathie ci souffrance bi nous am nous ñu nous nous nous nous ci nous mi nous sommes bitim nous mu metti le Sénégal nous tient à cœur sommes tey ñu ngi toog seen bureau yi di dem ak ñëw tranquillement comme si de rien n'était vous vous rendez compte ñii di wax di génne li nekk seen xol yi ngeen yaakaar nous sommes dans un match de football et chacun a son équipe il faut chacun supporte son équipe ce n'est pas un match de foot dafa métti dafa métti ci xol li may wax sama xol laa ko tibbee nit laa dama am xol am yeg yeg, am njaboot am ay dom, souffrir sama di souffrir parce que j'ai pas l'habitude de toog fi di de di wax sama vie privée ngi di wax lu tax ñuy wax am ñu di di wax il faut arrêter c'est du sérieux ñoo ils sont pépères ils sont tranquilles ils n'ont jamais souffert ñu ngi doon dem di problème jamono bi ñuy xeex ñi ñuy suufu ñoom amuñu problème xeexuñu ñu gañe ñoo léegi ñoom ñoom la ñuy woo ñoom la ñuy tànn ñoom la ñuy teg léegi ñoom ñooy ñoom ñoo nga ca donxaase ko toog bu ëllëgee bu tàkkee ñu dem toogaat seen kër ñun ñooy xeex ñun am nag ñu taxaw ne maanaam critique du fi am ko kenn du critiquer maanaam Ousmane ak Diomaye ñoom ay nit ñu mat lañu kenn du leen critiquer ci biir Pastef ñooñu tamit ay noonu lañu dañ leen war a xeex ñu nekk ci biir parti nekk ci projet bi ne kenn du ci wax kenn du am esprit critique ku ko ci wax kooku man dama lay xeex noonu nga Ousmane Ousmane nit la day juum juum na ba tey Diomaye day juum juum nañu ba tey ñun dañ leen war a dimbali di wax ak ñoom dëgg pour ñu bañ di juum ngeen kenn du ko fi wax yow mi koy wax yow noonu nga yow yow ci yow yow mi koy signal dama lay xeex yow. parce que yow juboo bëggoo lu baax danga nga déifier danga nga jël Ousmane def ko yàlla booba nga koy lor nag Ousmane Sonko bu leen toppee yéen ak jomaay bu ñu leen dégloo yéen ci pax lañ jëm ñoom. man xam nga je ne suis pas complaisant man su ma bëggoon a xeex tey Ousmane Sonko jomaay damay génn xeex leen am na ay moyens pour xeex leen man su ma ko décidé woon du ma ci xaar kenn man je suis extrêmement libre et indépendant et je suis responsable du ma defantu. ànd gi ma ànd ak ñoom bokk gis-gis ak ñoom moo tax ma ànd ñoom gëm li ñu gëm moo tax ma ànd ak ñoom wóolu leen moo tax ma ànd ñoom mais nag duñu samay sëriñ du ma gëm topp leen de su ma leen gëmul woon wala ñu joxoñ loo xam ne gëmuma ko damay wëlbatiku xeex ak ñoom billahi j'ai les moo de mon combat man je ne suis pas comme man du ma tricher bokkuma ak yéen dafa am yu nit ñi dindi am na ñoo xam ne ñu ngi toog fi di wax dara toog di wax dafa yomb di commentaire naan wuy gën a kay koo xam ne yow kenn xamu la dundoo waxoo xeexoo defoo dara toog di wax dafa yomb ñun on a pris des risques énormes yow mi nga xam ne kenn xamu la foo compte nga créé toog di wax kenn gisul foo xeexee defoo dara dafa yomb am na ay jamono fii wax yombul wallahi am na ay jamono wax yombul fi léegi nag ku neex wax. kum neex di commenter kum neex di xàqataay ga rek kum neex di xeex waaye am na ay jamono fii <laughs> euh, am na ay jamono ñi doon wax dañ leen di compter dañ leen di compter ñi sañ a wax ñi doon xeex dañ leen di compter ci biir réew mi comme ci bitim réew ñi doon wax dañ leen di compter wallahi dañ leen di compter léegi yomb na neex na li si na aéroport léegi moom ku ne mën ngaa wax. c'est très facile na am na jamono kenn ku nekk yaa ngi taxaw di xaar Akhenaton Tall wala diw Tall wala diw Tall nga ñëw déglu waaye yow soo ñëw wala boo amee lay wax da ngay woo Akhenaton ne ko Akhenaton waxal ma lii waaye yow doo ki jël risque yëpp di toucher tous les sujets démb di kaas ngay tàcc. bu ci kaw Macky Sall nga tàcc bu ci kaw marabu bi ànd ak Macky Sall nga tàcc bu dalee ci ki lay xas kii xas Ousmane Sonko nga tàcc tey ñoom ñu ñëw yor suñu alal yor suñu lépp ma am ci xalaat naan leen lii ak lii ak lii attention lii xeeñ neexuma ñu bàyyi xel ci lii ak lii ak la justice pour les victimes nañ ci bàyyi xel na ñu bàyyi xel ci ndaw ñi te moytu màggati xubidaas yu dugg ci pale bi ay Mademba Sooke ki ay Pierre Goudiaby Atepa ñooñu baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg defaluñu Sénégal dara Atepa mi ngi dégg am na alal lan la Atepa defal Sénégal wax leen ma ko Casamance gëm dëkk lu mu fa def c'est pas un patriote ñooñu duñu ay exemple ay dóorkatu marto lañ gëwuma leen ñu leen dugal ci palais bi di leen dagale pour lan créer emploi yan emploi la ñuy créer yan emploi la ñuy créer dañoo mas a créer emploi ñooñu yan emploi la Atepa mas a créer ci réew mi ñooñu di gis ci palais bi yan emploi la ñuy créer amuñu sax ay société ay bëy amuñu société tubaab yi la ñuy ñu toog ak ñoom ci pale bi teg seen i ndox di naan climatiseur yi tàkk gone yaa ngi ci mbedd yi amuñu luñ lekk suñu yaay yaa ngi ci mbedd yi jigéen ñi ak gone yi ñoo gën a sonn ci réew mi kenn du leen dugal ci pale bi pourquoi wax ak ñoom laaj leen ba xam lu ñu bëgg lan la ñuy xalaat yan formation lañ am yan niveau la ñu am yan diplôme ñoom ci lan la ñuy xaar ñu def benn assise de la jeunesse président président ko ma ne aha kii dégg na daaj xam na fi ñu jëm xam na fi réew mi toll mais di seeti ay di julli ci ay juma ji ay jakka ki di jité ko yeesa grand bubu ñu melni imam lañu fal man falu ba imam ndax man maay sama imam bop andu ñoo kenn ngir bëgg ay poste andu ñoo kenn ngir bëgg lo xamne mérité wuñ ko dañu am dignité bëgg réew mi gëm ne kenn ñoo bëgg réew mi man nga ñoo ëpp chance nak am ci ay position yu ñu amul mais gënoo ñoo bëgg Sénégal wallahi azim ànd ak yow taxul ñu wax la dëgg ay poste yooyu joxe yoodul joxe ñu am ko ñu ñàkk ko am la njamala wallahi al azim ndax ñun dañu tedd démb tey soog a ñëw bu ñu bëggee ay poste pour pour am ndam ci tabax gi ñuy tabax réew mi ëllëg suñu tur des ci bokk ci ñi tabax réew bu ñu ci bëggee ay poste sax loolu moo koy sabab mais soxlawuñu ay post on vit bu ñu ko bëggee rek c'est pour participer à l'œuvre mais xale poste boo xam ne doo doo fa gañ a boo mus a gañ doo fa am loo amul doo am niveau de vie boo fa amul au contraire poste yi gars yi di xëccoo koo ci jox post koo ko ci jox la mu cay ñàkk moo ëpp lim ko ciy am ci temps ci mbokk ci yu baree bari parce que amul xaalis sacerdoce la da ngay bëgg réew mi bëgg indi say xalaat bëgg participer ci réew mi ngir réew mi développé bu ñu amee succès ñu ne équipe nga bokk ci loolu mooy ndam li loolu mooy honneur mais du xaalis li ñu yor ci xaalis mën nañ ci dund alhamdulilah mën nañoo dund ba dee duñu am problème wallahi alazim mais réew mi bëgg nañ ko bëgg koo xam ne bu ñu sañoon ci ñi nga xam ne ñooy participer ci ñuy soppi réew mi ñu bokk ci moo tax ñu doon xeex démb bërki démb te loolu feeñ na ci xeex bi ñu doon xeex bu ñu bëggul woon réew mi bëgg mu soppi ko duñ ko duñ ci sax wax dañuy nekk ci suñu bopp duñ ci xeex duñ ci wax risque yi jël duñ ko jël parce que loolu loolu loolu amul honneur bu gën a rëy amul du al am loo xam ne xaalis du ko maye nit ki mën na am xaalis mën naa am jabar am ne mais am na participer xam nga dans dans publique nga am chance ñu la la kaay bokk ci ñi tabax honneur la loolu loolu loolu loolu du xaalis loolu leneen la kaay yow Sénégalais 18 millions ñu ne yow attention wàlle ma téléphone bi daanu 18 millions yi ñu ne yow bokk nga ci ñu tànn ne kaay ci tabax mi honneur la dimension moo tax Ousmane Sonko ak Diomaye Faye lii leen sénégalais defal honneur la ñoom faluñu leen pour ay privilèges ñoom xam nañ ko ñoom utuñu Ousmane wax na ko Ousmane nee na man utuma alal Diomaye nee na man mënumaa comprendre kuy agri bi la xaar Ousmane ak Diomaye bu ñu bëggoon alal du ñu falu président bu leen dund xaalis ak jigéen ak yooyu yitteloon duñ fa ñu nekkoon mën nañ fa am alal fa ñu Diomaye ak Ousmane bu ñu bëggoon am na ñu nekk impot et domaine ay milliardaires lañ ñoom xam nañ ko Diomaye ak Ousmane seeni morom yu nekk Amadou Ba milliardaire la Diomaye ak la Amadou Ba nekkee milliardaire xam nañ ko ak keneen ak keneen ñoom bu ñu bëggoon ay milliards foofu la ñuy toog dañ ko fa baax ne ñun réew mi lañ bëgg a jël pour tabax ko la ñuy pour tabax réew mi moo gën a métti waaye moo ëpp honneur tabax sa réew jubbanti defar fexe ba emploi am challenge boobu Ousmane Sonko donc bu ma daan déglu défi bi loolu mooy défi mooy naka laay defee man Ousmane Sonko fexe ba Sénégal. sama empreinte man Ousmane Sonko nekk ci daa man nga xam ne fu ñu nee Sénégal même su ma dee ñu ne Sénégal Ousmane Sonko man fi nekkee Ousmane loolu doon xeex mais du alal Ousmane bu toogoon këram doo ko day am alal toogoon da ngay am alal waaye moom li ko li ko tax a jóg du alal kon nit ñi bu ñuy xeex di wax du alal la ut ci état honneur parce que boo bëggee sa réew nekk patriote da ngay am mbégte bokk ci ñiy tabax réew mi loolu nag li may wax na baadoo la mënu ko xam. limay wax ab le mënu ko xam limay wax ku amul xam-xam mënu ko limay patriote dans le sang mënoo xam le wax limay wax du xaalis limay wax du sac limay wax du titre limay wax du bling bling limay wax du du ay privilège du ay avantage limay wax leneen la honneur la ku am dignité ku am yar ku am euh, delluwaay ku am ay mbokk ku am éducation ku am ay parents yu patriotisme xam dafa am honneur la du alal loolu nag loolu nag du ñëpp xam am na ñoo xam ne ñoom defuñu seen bopp dara seen waajur yu yaruñu leen defuñu seen bopp yooyu yooyu honneur yooyu dimension amuñu ko moo tax doo leen dégg doo leen gis dañuy làqatu di commentaire duñ jël benn risque duñu wax duñu jëf duñu xeex bari na ci mais ñi nga xam ne am nañ valeur yooyu mel na Sonko mel na Jomaay ñu dañuy jóg dañ leen di dégg dañuy assumé dañuy jël ay risque dugg ci kaso yi xeex na ñun dañoo bëgg jël pouvoir bi pour tabax Sénégal parce que ñoom bokk nañ ci yenn Sénégalais yi am chance am éducation boobu jëlee ko ci seen ay waajur le sens de l'honneur boobu ñoom am nañ ko ñu man ñi di wax am naa ko ñi nga xam ne jël nañ yëpp taxaw di xeex ba dara am nañ ce sens de l'honneur mais yambar yeeg mboq yi nga xam ne dañuy làqatu di commentaire waxuñu xeexuñu def dara ñooñu amuñu boobu ils n'ont pas tété ce sein là namp ñu meew moomu. donc li may wax ni dama koy wax pour dimbali len alerter len te dama japp ne jomay fay Ousmane Sonko ils sont tellement intelligents qu'ils vont comprendre ma position ma posture et ma façon de faire man je ne peux pas man moo tax j'ose li may def ni dama ko def parce que dama am njort man dama japp man dama gëm jomay je le connais très bien c'est quelqu'un qui est très dialectique jomay est très ouvert il aime beaucoup écouter il a dit d'ailleurs wax na ko man j'aime bien la contradiction parce qu'il est intelligent. Ce sont les esprits intelligents qui aiment la contradiction. Ce sont les esprits intelligents qui acceptent la contradiction, mais pas des esprits optiques, des petits esprits. Moi, je suis à l'aise. je suis à l'aise. Je ne, je ne dis pas que oui, c'est le président. Je ne dis pas que Ousmane Sonko c'est le premier ministre. Je non, non, je suis à l'aise. Parce que je sais que nous avons une capacité, nous avons une capacité de tirer ci limay wax ñu xool li ci jariñ ñu jël ko li ci jariñ ñu teg ko fële am nañ cette capacité ne ngeen fogg na man li ma daj ci xeer bi naa ñëw ba fii di ko yàq di ci xëpp suuf ak di ci xëpp kaar yi non mais man dafuma dafuma xeex ba agsi fii di koy non non non damay gën a xeex pour mu gën a baax parce que du ñoom lay xeexal Sénégal lay xeexal la yàgg naa ko wax li may xeex du pour ñoom ah c'est pour le Sénégal donc j'ai toujours eu cette posture j'ai toujours été constant xeexal Sénégal moo tax ma ñemee tudd ay sujet yoo xam ne bi ma koy laal kenn ci àdduna ñemewu ko laal sujet yi may teg ci kaw taabal ji gindi ci ñu baree baree bari ba ñu bari xëpp ci seen bët il fut des moments kenn ñemewu ko tudd ku ci wax rek ci mën nga ko déggee maa ko njëkk ubbi ba ñu baree baree bari yeewu ci loolu pour njëriñu Sénégal la ñu tiñ ci xel yi xippiloo nit ñi xupp giñ leen xupp ragal loo giñ leen ragal mu dakk ku nekk di wax sa xalaat ñu di ko discuter loolu lañ soxla mais kenn du wax soo waxee ñu ñëw dammat la saaga la yàkkal la dugal la foo xam ne attale juge te xamuñu la bari na ñuy wax fii di wax ci Akhenaton xamuñu Akhenaton su ngeen ko xamoon du ngeen ko yàq yenn yi dem ngeen ngeen laaj kan mooy Akhenaton dem leen ngeen xam ku ko xam xam ay waajuram xam jaajaaram ngeen laaj ko kooku dina leen wax mais c'est pas l'objet du débat parce que musuma toog di ci wax parce que c'est pas important ngeen xam may kan li am solo mooy li ñu bokk ma di ci wax ñu ciy wax muy Sénégal ñu ne imam léppay baax mais awma ki sikk sàkk léppay baax gi nag nekkul tëdd jaaxaar di xaar yàlla baaxal maa leen gën a gëm na léppay baax ba may gëm na léppay baax du tey booba faloo guñu ba may xeex laa xam ne lépp dina baax ba muy metti Macky tëj ñëpp di traqué ñëpp Facebook sax muy jàpp tëj réew mi ñëpp ne miig Serigne Seck ñëpp ànd ak Macky Sall Moussa Fall di tëj di rey di dugg ci kaso bi booba la gënoon a metti booba c'était pas évident booba laa gëm na dina baax fa mu gën a méttee fa laa gën a taxawee di wax di yëkkati nekk seen commandant naan na metti xeex ayca ay ayca ay ayca fa mu gën a méttee laa xam ne dina gën a baax parce que man xam naa yàlla du tey laay xam ne dina baax da tey déedéet kon ba may xam na ba may xam ne dina baax booba booba c'est pas évident booba wóorul woon projet bi jàll <laughs> donc man au moins si dana baax weesu naa foofu man weesu naa ki dina baax loolu yéene damaa toll ci naka la acte jëf yi ñuy teg fu nu baax foofu laa nekk waaye dana baax moom loolu xalaat boobu moom ca début ba laa ko xalaat mu mu doy ma ma mu convaincre ma ma sóobu weesu naa ko at dana baax moom weesu naa ko baaxal kay ci nekk ci acte ñi ñu koy jëfe ba mu baax ndax dana baax moom yàlla du baaxal lu dul jaam bi jóg jéem a baaxal yàlla soog ko ñëw damaa nekk ci li ñu war a teg pour mu baax waaye dana baax moom weesu naa ko ay at xam kon ay tolluwaay la léeg ngay wax fekk yow tu es en avance ci ñi ngay ñi ngay wax ñoom nga ca ngoy nga ca ginnaaw yow dem nga sa pënd sax bi wuri tax na gisatuñ la tool leen ay tolluwaay léeg am ku may tontu man moom moom ñu ay tolluwaay bokkuñu ay dimension day am